Imam El Hadj Oumar ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. ñu lay fay di fay auditeurs réew mi FM yëpp. Mhm. di am mbégte topp ci seen laaj yi di am am mbégte seen invité. Uh-huh. nga bokk ci euh, coordonnateur u commission nationale concertation croissant lunaire muy commission provisoire gi ñu fi tegandi nga doon tamit secrétaire général association euh, des imams et oulémas euh, du Sénégal tey ji Konakok lan lañ ci mën a jàpp gannaaw nag ba ñu tegandee boobu le comité. ñu fexe nag di ko teg ci yoon pour liggéey bi nu mu gën a rafet yi gën baax te diine tërëb ko ndax responsabilité boo xam ne la suñuy njiit suñuy kilifa te ñu ko sas réew mi it sas ñu ko gouvernement bi tamit wóoluñu ci sas ñu ko ànd ak ñu accompagner ñu pour ñu mun ci liggéey ba lépp leer te lépp tegu ci yoon te julli ci ban ci am ay jaaxare mm-hmm. loolu moo tax ñu nangu. Mhm. ñun li faloon ñu bokk koom ñoom bokk koom ñaari nit fexe di ànd di liggéey pour li ñu sant muy seet weer bi joxe xibaar bi ñu nekk ci. te def ko nu mu gën a ko jubee nu mu ci. tey jii ki doonoon euh, coordonnateur CONACOC euh, jóge fii bàyyi ko fi bu yàggul euh, ñu koy ñaanal fam jëm mu gënal ko fii tey mu am li nga xam ne tey da ngeen ko war a eggali muy mission gi fi nekk ñu bëggoon a xam tey perspective yi lan la. waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm jëkkal ko tàbbal ko àjjana ci yërmandeem ñu yàgg ko ñaanal perspective yi mooy li ñu tracé woon war ci liggéey war ko doxal ndax ñoo loolu dafa nekkoon pour gindee jullit yi mhm. te sëriñ seeg xam-xam yeeg waa réew mi yeeg politique yeeg gouvernement bi ak ñëpp ànd ci pour ñu liggéeyandoo te ñu ñu ñu sas ñu ko ñun ñu seetal leen ko jox leen xibaar bi mhm. ñu ngi ñaan yàlla tamit yàlla ginde ñu ba diñ ci yaakaar pour mu nekk mu ne moo ñu koy séentundoo buñ ko gisee ne euh, xibaar bi nit ñi tamit mën na ci ànd ndax ci yaakaar dañuy teg loolu ñun ñu ñu loolu ñu fexe ni ñu mënti def ba gis ko rek wala buñ mu amul xibaar ñu joxe xibaar bi ñu am mooy weer bi feeñul dañuy mottali benn fan bu weer bi feeñee tamit fa la ñuy liggéey bi bu feneen ñaar fukki fan ak juróom-ñeel ñu dellu sa waat liggéey wax ak affaire weer bi affaire xam-xam bi affaire euh, li ci génn justement ma doon liggéey bi nga xam ne ñett ñoo ko sumb euh, yéen ñett yéen a ciy liggéey euh, ndax yomb na liggéey à trois coordonnées mbir mi ni mel. waaw liggéey bi mooy séntu weer bi seet ko ak suñu correspondant yi man yàgg naa ci nekk lu mat ñaar fukki at ak juróom-ñaar fukki yoon ak ñaar ci at mi donc loolu lu nekk la donc lu ñu tàmm la. Mhm. séntu ko ci réew mi yëpp ak suñu correspondant yi ñu am. muy ci ko goxaat yëpp fu mu gën a soree ci Sénégal ndax fu nekk am na fa ay imam am na fa ay jàkk am na ñu koy seet bu ñu jokkoog ñoom dinañu jox xibaar yi wala ñoom bu ñu amee xibaar rek dañu koy remonté mu egsi si ñun. Mhm. pour mun a egsi ko jox sous préfet bi mu jox ko préfet mu jox ko gouverneur ba mu egsi si ñun. Mhm. ñu nit ñu oolo wala euh, gën ko saytu ba am ci xibaar daal di ko wax daal di joxe euh, résultat bi nga xam ne moom la ñu am. Mhm. ci territoire bi yëpp. ngeen dajeeg ministre de l' intérieur bu yàggul mënoon nañu xam lan moo waraloon sax ndaje gi. waaw li war a di dajee saa yu nekk ndax ministre bi comme dafa nekk ci tutelam ndax mooy ministre du culte en même temps fokk ñu ñu doxee biir le bu nekk wala benn yoon ci weer bi wala ñaari yoon ci weer bi suñ ko mënee dañuy daje wax li ñu xam wax li ñu def. boo amee dara tamit ñu waxtaanee ko ndax ñu bañ ci réer ndax mbir mu bees la doxalin bu bees la boo xam ne ñetti nit da koy doxal ñetti nit yooyu nag waruñu réeroo man nañu fexe nu ñuy def ba loolu mën a dox nu ñuy def fexe tamit def ba loolu mën a ñoom loolu moo tax weer bu nekk wala fukki fan ak juróom yu nekk dañuy daje ci ministère de l'intérieur wala fu mu munti doon ñu waxtaanee li xew waxtaanee actualité bi wax tamit li ñu def ci diggante fukki fan ak juróom yi jëm na ci orientation yu bees yi nga xam ne foofu lu ñu war a jëm du yàgg. nga wax lu am solo euh, ministre de l'intérieur mooy ministre du culte en même temps ndax loolu dafa firndeel nii dafa wax a am tey jii euh, ministre du culte. non non mun na am ministre des affaires religieuses. waaw mais comme loolu amul. donc ñu dénk ñu ci benn lu ministère. tey lan mooy solo ministère yooyu la. Euh, solo ministère yi mooy lu ñuy def lu nekk. ministre mun ci accompagner gouvernement bi. Mhm. bu ñu fàtte ne dañu nekk dans un pays laïque. Mm-hmm. démocratique mais aussi religieuse. Mm-hmm. donc ñu ñëpp dañ ci am part war ci wax war ci def ndax bokkuñu benn diine rek nekk fi. Mm-hmm. am na yeneen diine yu ñu bokkal réew mi. am na ñu nekkal fii ci réew mi tamit. te noonu la ñuy doxalee. comme noonu la ñuy doxalee nag te noonu la ñu war a doxalee. il faut que ñu dem li nga xam ne nag ministre bi moom suñu nekk foog mu saytu ko.

waaw parce que tamit xam nga dañuy aji màkk. Uh-huh. dañu bokk ci yenn organisation yi. Mm-hmm. dañu dem tamit Rome même Jérusalem pour ñi nga xam ne bokk ñoom ñoom diine. Mm-hmm. ñoom it dañ ciy doxal te loolu day am at mu dekk. Mm-hmm. te tamit gis nga ne aj bi war am loolu ndax mu gën a accompagner mbir mi ndax feebar bee fi nekk kenn mënul dul aji. donc yu bari loo xam ne dafa tëgg ci loolu bu amee màggal wala gàmmu wala daayira wala daara lu mu tuuti tuuti war na ko war na ci xam te it comme war na leen dimbali. Mhm. war a jàppale organisation yi xam tamit yan organisation moo fi nekk ak ñeen ñoo fi nekk te kuy def organisation foog nga appuyé wu ci ministre de l'intérieur. Mhm. mooy seet mooy def enquête de moralité bi mooy xam but yi ak objectif yi. donc du lu tuuti. d'accord ak orientation yeneen yi génne zakat yeeg génne waf yi saraf yi yooyu yëpp ci dugg. Imam Diène euh, tey Konakok mu am comité provisoire bi nga xam ne moom lañ fi tegandi tey ji euh, diiru boobule comité euh, kañ lay jeex. waaw comité bi dafay dox fii dañ ko chargé woon mission ñu xool weeru bi. Mhm. moo ci topp weeru koor bi ci topp. bu ñu seetlu korité bi tabaski moo ci dem fii ak ñaar euh, ñeenti weer euh, ñaari weer. Mhm. ci weer nag waatee muy tam xarit bi mission am doog a jeex comité boobu jeexal ñu doog a fal nag euh, la beneen entité. Mhm. mais toujours bu nekk ci CONACOC boo xam ne muy saytu affaire weer bi liggéey bi du taxaw day continuer. Mhm. ci saytu comité ci saytu weer wi sax euh, imam ndax jàpp nga ne euh, suñu dëkk euh, atum ren mën nañoo woor woreendoo woor ak wari moom mu ngi dépendre yàlla suñu borom bu génnee weer bi rek ñu gis ko ñu def mhm. comme sharia dafa nañu seet bu ngeen gisee ngeen ngeen dox bu ngeen gisul ngeen mottali benn fan mhm. foofu rek lañ koy wéer ndax munoo nekk ci sharia bu fari di doxal leneen xëy nag am na science boo xam ne mu ngi fi. Mhm. boo xam ne ci ay natt lay doon ci boobu am na tamit xam-xam la bu méngoo ak tolloog jamono. Mhm. ndax ñu ngi toll ci vingt et unième te lu xew lu ne communication bi daf ci gaaw. Mhm. natt yi daf ci gaaw mais lu nekk ci calcul na calcul mun na andi juum moo tax yàlla suñu borom ne moom ay pexam la yoreem mun nañ di séntu mu nekk nawet. muy taw fépp ci Sénégal kenn du ko mën a gis te gis bi la wax bu boobaa dañuy def fanweeri fan mun na it nekk noor te kenn du ko gis. niir mhm. yi nëbb ko ba nga xam ne kenn mënu ko gis bu boobaa dañuy def fanweeri fan. Mhm. waaye ne weer bi moom bu dee ci xam-xam rek bés bu jot mu ngi fi mais comme charia dafa ne gis mooy yàq bi fokk ñu seet ko bu ñu ko gisee wax ko wala bu ñu ko gisalee wax ñu ko. donc nag kañ lay séentu séentu bu njëkk. bu soobee yàlla ñu koy def ci àllarba bi yu mhm. ñëw ci la ñuy maanaam ëllëg. Mhm. Uh, gis nañ ko gisee. a war bu ñu ko gisee ñu mottali. Uh, gis nañ ne ci yenn dëkk yi uh, dafa mel ni dañoo jël science boole ko ci ba ci ay calcul bëri na ci liñ ciy dem tey Sénégal dafa mel ni eggaguñu foofu. déedéet Sénégal ñun ci téere yi rek lañuy lañuy mhm. lu téere yi wax rek loolu la def. comme téere yi kenn du ko amandé. te mënuñu ci génne benn résultat dañuy ànd ak téere yi rek ndax moom lañu ñu yonent bi sant moom la ñuy waxoon ne na wàcce laa loo xam ne al yawma akmaltu akmaltum ci diine ji nga xam ne ci discours bi mujjee def keroog ca Arafat nee nañu seet basé loolu te des ci loolu te nekk ci loolu mhm. bu leen ko wàcc bu leen ko bàyyi comme nag moom la yàlla yónni ci ñun du ko wàcc dañu ko ci perspective yi ndax mën nañu am yaakaar gannaaw comité provisoire gi ñu fi teg ci perspective yi ba tey euh, bu ñuy yaatal euh, CONACOC ba dugal ci euh, ñi nga xam ne mooy ay entité yi fi toog di gëstu di tamit séntu weer ci wàllum science. waaw mën na am ñu daje waxtaan wala loolu nu muy tëddee mais kenn ku nekk dafa am ci paramètres yi muy dox. Mm-hmm. Sénégal la ñu nekk tamit. Mhm. te tamit euh, diine gi ci Sénégal tarixa yi am nañ ci doole trop. bi yi ñu jàng am nañ ci doole trop. Mhm. ñi nga xam ne ci école bi ñu génne tamit ñoo ci ëpp. mooy malikit yi. kon loolu dañuy sukkandiku toujours ci téere bi rek ndax li yonent bi waxoon rek la ñuy bàyyi dañuy continuer da ne ca. Mhm. bés ko wàccee nag bu amee leneen loo xam ne dafa dal suñu kaw. bu boobaa ñoo ko yóbboo suñu bopp ci suñu ay bëgg-bëgg. Mhm. wala doxal gi ñun yónni ñu ñu yonent bi la ñu yónni woon mun nañu def leen nii te loolu lañuy ñuy def du ñu wàcc loolu. imam tey ñuy màggal korité di ko waaj euh, jamono ji tey euh, lan lañ ci digle. Euh, korité bi ñu ngi ciy digle ginnaaw bu leelatu xadar bi passé. Mhm. wala sax ginnaaw fukki fan ak juróom rek. ni ne ñuy def seen bopp seen xel di génn muuru koor yi. Mhm. loolu mooy article premier bi ndax mooy tax ñu nangu suñu koor jox ko ñi ko yelloo ñoom yàlla teggil leen nattu woon bi mu leen teg te ñu nangu ko ndax seeni dund tamit mën a ñëw donte ñaari fan la wala ñetti fan sax mu wàcc leen yalwaani bés bu nekk wala uti bés bu nekk ñu dallu toog te xam ne am nañu tey mhm. jox na leen ba ñu bëgg ndax ñi yàlla ñi loolu dafa tattoo ñeneen ñi yore tamit dañ ko dem joxe noonu ñooñu ndax li nga yor li sa muur moom nga moom li mu la ci sant génne ko ci jox ko ñoo ko moom. Mm-hmm. muy asaka yi muy muuru koor yi muy sarax yi ci munti def rek ngir yàlla tax te yàlla sant la ko dafay nekk loo xam ne lu mu gërëm la te bu ëllëgee daf la koy fay. Mm-hmm. natt muuru koor bi nag daf ci bokk daf ci bokk yaa ko it pour nekk responsable rek war na la. ak ñi nekk ci suñu tool on est en koor. Mm-hmm. boo ko génnee tamit jox ko ñu ko war a jox nga waajal julli ji. Mm-hmm. julli gi julli ñaari rakka la ñàkk yoo xam ne dañuy màggal suñu borom sunnas Muhammad alayhi la. Mm-hmm. boo xam ne bu jàng. dañ jël ak juróom-ñaari kabar wala bi muy juróom-ñaar bu dee rakka ñaareel bi. juróomi kabar lay doon te ci kabaru jóg bi bokk ci. tasbiya boobu nag boo ko defee màggal yàlla joxe sa koor mhm. am sa mbégte te xam ne yàlla nangul na la yow njortal loolu rek te xam ne am na yéeg mbégte ci sa yaram rek bu mhm. ci mer bi su la bi su la bi su feetu lislaam la mhm. ci ñetti feet yi gën a màgg ci lislaam ci la bokk ndax feetu def épreuve boo xam ne la sunna Muhammad la ci nit ñi koor nag nekk loo xam ne yàlla daf ko santaane yàlla suñu borom moo ñu war ne koor moom maa koy fayal sama bopp. Mhm. génn naa ci seytaane nit ñi nekk ci épreuve dafa ne dafa metti fekk épreuve bu neex la épreuve bu lay faj la épreuve bu lay dolli la épreuve buy seetal euh, seetal sa ci yàlla suñu borom la épreuve bu ñaan la ndax da ngay toroxlu xiif mar fii jant bi di fenkee ba fii jant bi di sooyee mhm. kon loolu lu islam santaane la di nit ki da ko def ci xol bu set ci mer bañ ci wax lu ñaaw bañ ci jiw bañ ci def lu bon bañ ci def lu ñaaw di yéene lu baax rek te loo mun dimbali nit rek bis bi koor gi commencé ba keroog muy jeex na nga ko def ñii nga xam ne nag yàlla dafa la nattoo mënuñu oor feebar jàpp leen wala nattu jàpp leen ñu fexe ñoom it di leel miskin yi te ba mu jotee bañ ko tardeel ndax ñu am bés yooyu ñu konteel leen ko comme bés yu ñu wooree bés bu ñu dajee suñu borom mu fay ñu yàlla na ko yàlla defal. def jàmm ci suñu réew. def jàmm ci suñu nguur. def jàmm ci suñu wéru yaram. te di nuyu fi feebar bi ñu tiim. ba ñu mun ko fekke waat ay yoon di ko nettali. incha allah. amiin euh, ñuy fàttali ne imaam euh, El Hadj Oumar Diène la bokk ci coordonnateur commission nationale concertation croissant lunaire.